alors comme ni mu leen ko waxee woon nag euh, yegg si nañ si deuxième partie bi di ci euh, fas yéene ànd ak ki nga xamante ni moom moo ci Mamour Diobaye Mamour maa ngi lay nuyu. Je ngi fay Adja di la jaajëfal di am mbégte ak contentement di partager plateau bi ak yow. Mhm. di nuyu euh, les fidèles internautes de SENactu 7. Mhm. je suis très ravi encore une fois fas yéene lepp luy jëm ci wàllum actualité. et ton week-end ça s'est bien passé. ça s'est très bien passé alhamdoulillah di ñaanal tamit hein, mhm. un très bon euh, début de semaine à toute la population sénégalaise yàlla na Sénégal am jàmm Adja. alors Mamine alors euh, Mamour tu as suivi li nga xamante mom modi débat bi on a remarqué que.

comme ni nga ko waxee depuis euh, bërki démb gis nañu yenn information yoo xamante mi ngi circuler sur la toile publique le premier ministre Ousmane Sonko euh, bi muy daje ak ndaw yi nga xamante ne ñi ngi leen doon décerner yenn prix dafa yëkkati woon ay kàddu li mu si wax nag mooy du ñu structure scolaire ñuy interdire accès ci ñi nga xamante ñi ngi takk li nga xamante ne moom voile mu indi nak coow ci biir réew mi ba ñu gis euh, ben abbé yëkkati ay kàddu di euh, ñàkk bañ a rafetlu les propos yi nga xamante ne le premier ministre wax nañ ko. Mm. boobu ba tey nag des spécialistes ñi nga xamante ne seen xam-xam euh, màcc na ci ay ponk yu bari. Mm-hmm. gis nañu des acteurs politiques waaye tamit gis nañu des hommes religieux ku nekk génn yëkkati ci ay kàddu donc je pense que Cheikh Omar Diagne ñun ñëpp gis nañu sa réaction. Mm-hmm. de même que Oustaz Assane Seck. Mm-hmm. même tamit le ministre de l'éducation moom itamit biñ ko laajee bi la question indi na si li nga xamante ne moom mooy benn tontu gis nga Adja dañu nekk ci dëkk boo xamante ne dañuy wax ne que c'est laïque Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ne dëkku religion la. Mhm. parce que dafa am ay kilifa yoo xamante ne jaar nañ fi. ñi ngi jëm ci màggal et événement yooyu noonu dafay déterminer ñun suñu ay culte mhm. ak li nga xamante ne moom la ñu gëm. Mhm. Sénégal dafa am ay valeur am am tradition am li nga xamante ne moom mooy say principe donc man bëgguma sax di dem. dans le fond des analyses parce que euh, n'est un sujet très complexe et je pense qu'il faudra faire très attention parce que ça touche un peu le domaine dogmatique mm-hmm. et c'est très dangereux donc je pense que ñi nga xamantene ñi ngi si yëkëti dans une analyse nañ ci dem objectivité mm-hmm. waye man dama japp ni rek mbir bi ni togon nañu ay at ci yag nañ ko soulever en 2019 mu indi won ay ay ndaw yi nga xamante ne dañu jóge seen biir kër dem di jàngi ñu tere leen dugg si seen biir école parce que lan dañu soloon li nga xamante ne moom mooy voile mhm. ma yàgg wax ne que il ne doit pas y de discrimination sur toutes les formes mhm. que ce soit dans le milieu politique scolaire social man gaw ma ne que discrimination war na am ci dëkk boo xamante ne ñu ngi ñuy wax ne que c'est un pays laïque moomoo mhm. mi ngi koy wax sànq tey dafa am loo xamante ne constitution moom la wax Mm-hmm. c'est très clair mm-hmm. on ne peut pas interdire accès si ndaw boo xamante ne day dem sàkku ji xam-xam mm-hmm. du ma fi citer yenn yi nous en tant que journaliste demandons nous fofu def des reportages jël réaction euh, parents yi ak élèves yi ci boppam tey jii gis nañu ay ndaw yoo xamante ne mbir boobu noonu perturbé na leen ba à un moment donné sax xawoon na yàq li nga xamante ne moom mooy euh, seen jàng su ma juumul sànq oustaz Assane sax euh, am na ay kàddu yoo xamante ne mi ngi ko doon wax. Mhm. nee na. Mhm. question yooyu noonu yàgg nañ ko posé. Mhm. mu def si nag des analyses. et ñun suñu déggee kàddu yi nga xamante ne moom la yëkkati day ànd ak les propos de Ousmane Sonko. Adja lan moo tax ñu war a interdire voile man j'aurais bien aimé. tey am en face bon am ko xamantene ne nañu plateau mu nek catholique wala nek dans le christianisme mu wax ñu exactement ñom sen ay principes et je pense que lolu day tax ñu am li nga xamantene mom moy ben échange. Mhm. amoon nañ sa invité euh, malheureusement xëy na loolu moo tax wala faut décliner après que na dina ma les raisons. C'est dommage xam peut-être on aura euh, l'opportunité. l'opportunité, mm-hmm. jàkkaarloog koo dit ne dinañu mën apporter euh, des précisions concernant polémique voile bi nga xamante mi continuer euh, di accentuer ou et lenn de mooy am ñi nga que nous ñi ngi yëkkati ay kàddu jëmale ko nous avons mbir nañu jël ce que le premier ministre Ousmane Sonko a dit c'est très clair. Mm-hmm. mënatuñu interdire Ben ndaw buy tak voile mu baña dugg ci enceinte scolaire. luy problème bi. légui nak amna na xamantene ne suñu ay kilifa la man je suis trop petit euh, pour di euh, joxogn baramu tuma wala may wax ay peut-être ñu bari duñ ko mais ma gëm moy Sénégal dëkk la Sénégal pays de valeur donc ñi nga xamantene ne ku am sa propre religion nañ ko ñu nga doxalee ko comme ni nga ko war c'est tout simplement ça c'est la mm-hmm. réalité mm-hmm. léegi je pense que aujourd'hui ñi nga xamantene ne seen xam-xam match na si walum yoon c'est le moment à ce que ñu guen waxat li nga xamantene mom la constitution bi wax sans que j'ai suivi euh, ki nga xamantene euh, mom moy euh, le juriste Daouda Mine mm-hmm. ñëwaat na sur les critères qui sont accompagnés ne moom accompagner loi donc il faut que à ce que tamit nos autorités nous jël seen responsabilités parce que nekk na problème boo xamante ne waruñu bàyyi muy gën di accentuer les collèges les groupes scolaires même les université privées qui nga xamante interdire yile mbir nañu dem conforme à la constitution bi wax ku hmm. nek nak mën nga am règlement intérieur mais par contre même aujourd'hui si tu euh, euh, euh, mets en valeur ton règlement intérieur tu lo xamantene mom monotone. la et au moment où nous ñuy wax on est dans un état de droit et l'état de droit c'est la soumission de de peut-être état bi au droit amna hmm. ay critères yo xamantene buñ ko à certaines règles. C'est la réalité. À toutes les règles. À toutes les règles donc su fekkee tey jii y a des critères fondamentaux yi nga xamante ne euh, moom nekk ci biir réew mi vraiment hein, soulever yenn débat parce que quand ça parle ci religion c'est quelque chose de très complexe et il faudra faire très attention sur ce sens-là par rapport à ces débats on a vu euh, la réaction de Cher Omar Diagne après que abbé bi parce que tamit euh, abbé l'abbé am nañu bëri ñoo xamante dañoo venant d'un abbé sa sortie nga xamanteni au lieu mu gëna a miser dans le fond c'était plus dans la forme dafa mel ni politicien bu doon wax ndax bu démé ba def lo xamanteni jëm na ci ay jugement de valeur concernant qui Ousmane Sonko ba ci fin bi nga xamanteni day wax juste que moom amul problème ak voile est-ce qu'il n'est pas contradictoire Wa, xam nga xam nga mom la la doon wax sank juste pour apporter une réponse ci walu bobu. Xolal li euh, Oustad Assane Seck wax Mom néna je piafé d'impatience que tel propos soit émis et que je suis en phase avec de tels propos parce que je mesure la souffrance des femmes si Benen Wal bi que interdire l'accomplissement des prières euh, canoniques telle école interdit le port du voile dans un pays comme le Sénégal où 95 sont d'obédience musulmane donc man j'aurais bien voulu souligner sur la forme mu dans le fond parce que appréciation est

Ah, mais effectivement man je suis carrément en phase avec euh, ce que Cheikh Omar Diagne a dit mm-hmm. ak Oustaz Assane Seck mm-hmm. et nous, ku leen cité xam que amna lo xamantene xam nañ ko si walum religion so gisee barki dem yenn article wala yenn commentaire yi nga xamantene ñi ngi fuité mais d'après les propos qu'il a eu à tenir amna si ñoo xamantene indil nañ ko des réponses exactes mm-hmm. légui nak je pense que gis nga nit lepp loy wax da ngay def li nga xamantene mom moy mise en perspective c'est ce qui s'est passé avant-hier ak euh, Cheikh Yerim, là où il avait pris des propos wax li nga xamantene ñun xam ko parce que tout simplement ces propos manquaient de perspective mhm. tay jii nak man j'aurais bien voulu tay jii abbé bi yëkkati ay kàddu wax référé wu peut-être sur li Bible bi wax pour indi li nga xamantene mom moy une conformité mhm c'est quelque chose de très complexe et je pense que amna ñoo xamantene même sax su fait mën nañ indi une réponse nous ne bëgg dem dans le fond mhm. ñun nak on est trop petit pour indexer qui que ce soit wala ñu yëkëti ay cadeau diko tek ci si suñu ay kilifa par contre je me dis que aujourd'hui si le premier ministre Ousmane Sonko wax yile mbir ñëpp ñu nekk dans le domaine religieux dañ ko war a rafetlu mm-hmm. parce que sans que je te donné des exemples ne la am na si ay ndaw yoo xamante ne xaw nañ si on a vu des élèves très brillants à cause de ce problème de voile là ñu naroon perdre une année tey jii gis nañu ay parents d'élèves yoo quand ils ont appris que leurs enfants ont été interdits pour ñu dugg si biir école mm-hmm. am une frustration donc ñi nga xamante ne ñi ngi yëkkati ay kàddu di wax ci yile mbir nañu revenir à la raison xam que le Sénégal est un pays avec beaucoup de valeurs. donc il faut qu'on évite encore ce genre de sujet Il nga a une diversité c'est très dangereux dans les commentaires il y a qui dit